ba tax na yi tamit daje nañu ñu waxtaan bi ñu waxtaanee am na ñu bari yoo xamante ne dénk nañ ma ko bëgg ma jotali la ko te man su ma yëkkatee sama kàddu ba pare fii ñi fi daje yàlla def na lu tolloog fukk ak ñaari organisation professionnelle artisanale ñi ngi fi te loolu itamit dañ ciy sant yàlla ndax bi ñu ñëwee ci bopp chambre de métier bi en 2016 ñaari association laa fi fekkoon muy coiffeuse yi Astoubal Seck jiite ko ak tailleur yi ma xam ne développement pour mu am foog organisation am tant organisation amul développement du am ci laa góor góorgóorlu fexe ba organiser leen électriciens yi soo leen soxlaa soxlaatee président bi rek ngay oo soo soxlaa mécaniciens yi noonu menuisier bois yi noonu ñoom itamit ñu nekk ci ay jàmbaar farlu ci dox ci bu baax a baax ba ñu ngi fonctionner à merveille loolu nag du ñu def lu dul sant ci yàlla ci organisation yooyu nga xamante ne am nañu ko. monsieur le ministre artisan yi tamit nee nañu mosu ñoo wan ginnaaw le président Macky Sall de 2009 à nos jours échéance yu romb dañ leen di woo te suñ leen wooyee dañuy ñëw taxawte nañ ca war a taxawee jëf ca lañ ca war a jëf waaye léeg-léeg ñoom dañuy seetlu ne cër gañ leen ca war a cër gañ ca war a am wala considération bañ leen war a jox parfois su élection passée rek dañuy daal di bankaat seen loxo suñ leen woyaatee rek élection moo jib si loolu bëgg nañ mu saafarawu xam na ne tamit ñii day comme ni ma ko waxee sànq ay chef d'entreprise lañu duñu ay militant politique ku yaakaar ne da ngay leen di dimbali balaa nga leen di dimbali foog ñu ñëw sa buntu kër toog fa di waxtaan wala ñu lay mobiliser jàpp naa ne kenn du leen dimbali ndax man mii nekk seen président mënu ma ko am ci ñoom ndax xam naa seen manque jot loolu lu ma teel a comprendre la te yéen yi tamit comprendre naa ne gis naa ne xam ngeen loolu ci ñoom doléance yi nag yu artisan Sénégal yëpp benn la muy les trois f 3F yi nag bu ca jiitu mooy formation ci wàllum formation yi tamit ñu ngi ciy sant yàlla naam doyul ndax formation moom saa yoo xëyee rek technologie day gën a avancé te technologie suy avancé tout le temps dañuy soxla ay renforcement de capacité pour mun a dëppook jamono mais yàlla def na diggante diir bu gàtt bi ñu nekk fii à travers la région formé nañ lu tolloog plus de 1500 personnes ñoo xamante defal nañ ay sessions de formation mais bëgg nañ ñu daal di koy dolli beneen bay beneen f bi tamit financement la léeg-léeg financement boo xoolee ñi toog ci salle bi yaakaar naa ñi ci am moins de euh, cinq ans bariwul artisanat moom la temps que ngay jàng métier ba ni ngay mokkale ba tijji sa atelier rek daanaka 35 ans day romb te dañu seetlu ne liste de financement yi état bi teg yëpp dafa am limite dage donc limite d'âge boobu tamit bokku na ci li ñu euh, freiné beneen F bi moo nekk foncier ndax boo xoolee dëkk bi amul kenn koo xamante ne am nga fi atelier bu tax ñu wax atelier ñëpp ñu ngi bokkatu seen biir kër yi ñi tamit nekk ci kaw trottoir yi te loolu yi tamit yaakaar naa ne jëmmalul jëmmalul taaru dëkk bi su bëggee dëkk bi am taar foog ñu seet ñooñu nga xamante ne vraiment ñoom ñooy nekk ci mbedd mi ñu seet fi nga xamante ne fañ leen la fa lañ leen di yóbbu. ministre bëgg nañ i tamit vraiment nga jël en main suñu village artisanal bi ndax ginnaaw yàlla village artisanal bi kese lañ fi am comme li nga xamante ne nii mun na accueillir touristes yi fi ne. boo xoolee la région de Fatick région touristique la mais touristes yu bari suñu ñëwee dañuy départ dem ba pour mun a seet lu ñuy jëndee ay objet d'art ak yu mel noonu. am nañu village artisanal boo xamante ne ñoom le président Macky Sall étant premier ministre moom moo ko inauguré woon depuis man bi ma ñëwee di ci bopp chambre de métier bi gis ne investissement bi ñu def nii ñu defal ko artisan yi man su ma fa ñibbiwul dafay nekk investissement à perte pour l'État du Sénégal ma ne donte damay jël ay gaal di fa liggéey man dinaa fa dem mais boobu tamit suñ ci tegee ay amaana peut-être quelque kii dinañ ma si dimbali ba gën ko moderniser mais village bi daal bëgg nañ ngeen jàppale ñu si ba ba mu nekk village bu mucc ay nekk village bu moderne. beneen bay tamit soxla nañu centre d'incubation boo xamante ne dañ ko équipe mu am des équipements de dernière génération. boo xoolee artisan Fatick kenn gënu leen xarañ ci wàllum liggéey corps de métier boo laal nag amul ku leen te gën a xereñ mais léeg-léeg soo wala ñiy liggéey bumte ñu ci bari ñi nga xamante ñooy liggéey ci wàllum artisanat ñu ci bari duñ fi dëkk lu tax duñ fi dëkk lan mooy différence bi mooy ñee équipement yi ñu yor ak équipement yi suñu artisan Fatick yor ñoorul doon benn su ma ko jëlee ma jël exemple ci wàllum menuiserie yi léeg-léeg da ngay romb benn atelier menuisier gis mu teg ay bant jël ay brique teg ko ci kaw brique yi loolu muy def mu ngay jéem a sese bant bi brique yooyu mënul sese bant bi looloo tax léeg-léeg soo gisee menuisier liggéey bunt mu xaw a dëng mais cadrement beeg yëpp dina baax mais machine boobu nga xamante ne moom mooy séché bant bi moom la amul te machine boobu jarul lu dul 3 millions de francs CFA dëkk bi ba dëkk bi daj amul kenn ku ko fi am du benn menuisier dañu am njiiti réew donc loolu baax na ñu bàyyi ci xel genre équipement yooyu ñu ciy bàyyi xel bu baax looloo tax ñu xalaat ne suñu amee centre d'incubation fii ci commune bu Fatick mun na fexe te toute la région képp ku fi amati liggéey nga ñëw ci centre d'incubation boobu noonu fexe def fa say liggéey daal di daal di demaat donc ñu équipé ko ak équipement bu baax projet yi may wax yépp nag ay projet yoo xamante ne nii bind nañ ko ba tënk nañ ko ba teg nañ ko ba pare mu ngi fi. waa Fatick joxante nañu loxo ngir benn yëpp nan lañuy def ba taxawu président Macky parce que leneen luñ leen wax te du loolu caaxaan la dëgg nag boo ci nekkee da ngay am ambition doomu adama day bëgg dara waaye bëgg dara nañ koy lal ñun ñëpp dama koy digal sama bopp di ko digal ñëpp politique terewul teraanga dox digal ñëpp ku mu nekk war ngaa sentir koo bëgg a waaye boo ànd moom na lépp rafet boo defee daje bi gën a yomb Issa Dieye yàlla dëgg rek la bëgg nit nag dina ne ma Issa li mu la wax tey waaye mosuma dégg mu wax ma may dégg parce que Issa tam dañuy gisee d'ailleurs bu ñu gisee dina won ne kilifam laa maa mag wanuma nag yaraliku wanuma leneen tàll boobu ma leen yàlla def ñu nekk mosuñoo toog di wax loo xamante ne ku ko dégg du neex waaye ku ne nag sañ ngaa bëgg sañ ngaa farfu la defe naa ne loolu du benn jafe-jafe parce que li ma wax tey ci suba bi ñuy wàcce kàmmi mooy yàlla bu lay jox sax dalay lay booleeg ñu nanguwul parce que bu ñëpp nangoo woote du am il mu am ñoo xam ne ñu mën ko dégg mën xam ne àdduna xëccoo mën na am waaye yàqoo mën nañu fexe ba du am ma bëgg rek ñu dellu ci gannaaw tuuti parce que àdduna aussi doléance am na waaye fàttali lu amit lu am solo la parce que ni ma déggee wax ji am nañu d'accord waaye ñu néew la ne am na lu ma sax Issa def na lim mën yeneen doomu Fatick kii def nañu liñ mën doyul nag moo tax ñu bëgg nit ñi dolli fàttali ngeen fii lu ñu fi jot a def ci ay machine mu jëm ci coiffeur yi lu ñu mës a def ci jàppale ñiy dem foire am na lu ñu fi wax lu Bamba Sarr andi am na lu ñu fi wax lu keneen ak keneen andi même ñu bokk ci yéen sax am na ñu dem Màkka ren dafa jaarul ci yéen waaye ci seen njaboot lañu bokk am na lu bari luy am di dem directement du jaar ci chambre de métier mais ci seen njaboot lañ dem te kuñ laal ci yéen mel na laal na ñëpp man loolu laa gëm bu ngeen bëggee nag ñu bi nga xam ne luy duggati ci yéen nag jaar ci kenn loolu mën naa ne waaye il faut ñu soppi doxalin heureusement Issa xeexul xuloowul ak kenn man la doon dajal te xamante ne waaye bu doon dajee koo xamante du fàtte du xamante buy dugal dara dootu jaar ci moom parce jàpp nañ bu jaar ci moom da koy may doon waaye boo gëmee yàlla loolu doo ko xool euh, waxu politique bi mu wax boobu wax ko foofu jaar boobu tey yéen ñi àndoon di xëccoo même bu ngeen ñaari voix ngeen am xeebuñu ko waxtu balaa ngeen am plus de 1600 voix tey Issa fi ma nekk la nekk parce que ci ay coordination la ñu nekk cela veut dire que kàngam yëpp ñoo bokk kuréel bi ñu nekk yéen nag ci quartier yi ngeen bokk am na ñu ñoo xamante dinañ ñëw fekk ñu ci commune bi ñi ciy des nekk ci quartier yi parce liggéey bi ci quartier yi la donc tey jox nañu ndigal tous les comités de quartier pour que ñu intégrer ñëpp te xam ne amul kenn ku ñu mën a beddi parce que ñun ñoo bokk Macky Sall ñëpp tey ànd ak Issa amatul solo ànd ak Matar Ba amatul solo li am solo mooy nan la ñuy def ba jàppale président mu am ndam démb bi koy wax ñu bari dañ doon ree nee naa leen maam fàttu leer na ma dem na leen nelaw man ma toog di ree pour moom yàlla mooy fal loolu bu fekkoon ne mbir la balaa moo tëdd ñun ñëpp ñu tëdd ñoo koy njëkk a tëdd noppale parce que buy fee nit ñi nag moom mooy def fee waaye yàlla bu lay fal da lay boole nit ñi ku ne def la mën pour que nga fal moo tax mu ñëw tey fii janoog yéen ngeen gën ma koo xam ñu ñaan yàlla li ñu namm ci moom président namm ko yàlla na am ci set buy ñu am ndam lu rëy lépp est grave yéen a ngi wax doole yàpp dinaa ci ñëw mais l'heure est grave comme ni ko l'autre waxee li tax ñu ne l'heure est grave c'est pas Fatick parce que Fatick a toujours fait son devoir et Fatick dina def lim war a def mais Issa Diaye nii bu ngeen ko faloon mu nekk président chambre de métier te amul droit de décider chambre bi du dem président Macky Sall suñu bëggee bu xalaatee pavé dëkk bi xalaata def autoroute Fatick Mbour Kaolack mu yegg dañ koy jox doole bu mu ko def opposition bi passé motuñ 15 député dégg ngeen coow li xeex ak lu ne di bloqué assemblée nationale loo xamante deux heures de temps la ñu def ci une journée waaw bu ñu leen joxee doole bu boobu fu ñu jëm kon di ngeen gis président bu dindi vingt cinq milliards di ko jox ay di ngeen gis président bu jël dix milliards di ko def télé scolaire ba waa Fatick di ci jot doo leen ko gis loolooy dëgg fi ñu toll nii farata la ngeen jàppale président Macky Sall parce que jàppale président Macky Sall mooy jàppale seen bopp yéen da ngeen am métier réew muy dox moo tax artisanat di dox bu réew doxul artisanat du dox c'est vrai que les nouvelles technologies bi nga xamante ne moo am léegi tax na Jean male ak Mbaye nga xamante ne bu courant bi réeroon dañuy mos fii bi yooyu mënatuñ ko def parce que oto bu ñu mos fii amatul donc il faut que ñu capacité leen ba nga xamante ne machine yi ñu war a am pour xam li baan ñu dindi ko monté waat ñu mun ko am moo tax li ngeen wax tout est légitime je se que Issa dina ci jéem mais ñu ni tamit dinañ ci jéem mu ngi may wax léegi centre d'incubation dogu naa ànd ak moom ci foofu fi nga xamante ne ñoo koy décidé ñu mën cee waxtaan ba yàlla def mu am ma leen di yëgal nag nag lu jëm ci artisanat ak formation dañ ko mës a jox gëdd suñu loxo moo jotul suñu gannaaw moo tax projet bi yéeg gis ngeen bâtiment bi nekk à face Sénégal service ku romb lan la centre de formation pour la mairie de Fatick et les artisans et les travailleurs de Fatick defuñu ko fi pour keneen dañu xam ne ci formation mën ta ñàkk ci seen biir ñu def ko fi nar équipement nommé fi nit di fi def ay module di woo ay techniciens ñu ñëw di accompagner les artisans de Fatick te duñu fay moo tax ñu koy tabax nii pare loolu buñ ko boolee ak seen i effort ak li nga xamante ne président Macky Sall ma leen koy yëgal police bu njëkk ba la nekk Daaru Salaam du yàgg ministre bi yor formation professionnelle ñu ngi xool ndax ci biir campagne bi la wala toujours après la campagne dañ fa war a def lycée moderne professionnel pour la pour Fatick loolu lu ama am solo la ba nga xamante ne photographie coiffeur yi lépp lu ñuy def te mu nekk lu dernière génération dafay am ngeen mën a dem def formation mais nit mën a dem jàng fa yi loolu bu ñu ko defee c'est pour Fatick moo tax ñu koy def kon nit ñi tooguñu rek croiser les bras waaye wax li ci nekk mooy ñuy wax dëgg wax ngeen ñu dëgg nag Talla wax na ne ñun xejuñ ci bi artisan Fatick yi waaye fàttali it baax na Biram Fay mii wala man mënuma jël rek benn marché ne Fatick lay jublu jox leen parce que loo gis ay marché la réew mi dafa ami charte am na loo xamante ne mën na am nga def ko par exemple tenue yi président moo jox ndigal encadré ko pour que région bu ne ñu tànnal la quota jox la loolu ça n'a rien à voir avec les marchés publics mais dafa am loo xamante ne c'est les marchés te li tax ngeen mën fa yegg mooy doole ngeen nekk benn am ay entité yoo xamante ne da di am doole mais ku nekk bu defee pàccam du sotti yéen kuy naw nit dina leen naw parce que da ngeen di xëy di daan doole te xeebu leen li ngeen di daan doole métier ku ko am di nga dund parce que lu mu dee dee nga am looy for te képp ku nekk sa liggéey taloo di wax wax jaaxal moo tax jàppale leen farata la ñu ngi jéem nag mais yàlla dinañu gis bon yoon wi parce que ndaje yi ndaje mbégte la mais ndaje yéene wante jàmm la te yéene wante jàmm fu mu am rek buntu am ñu leen di wax ne site de recasement des artisans suufu Fatick nag moo manqué parce que xam ngeen ne lu mel ni Ñaaxar lu mel ni Mbelako Jaw mel ni Diouroup dañu ñëw ba ci buntu Fatick ñu commencé lotissé jëm ne Fatick day bëgg dara ci suuf du ko am waaye dinañ ci waxtaan ak ñoom ni ñu def ba université bi am ni ñu def ba lycée moderne beneen war a am daanu njuwaar fooraay war a am ñuy waxtaan ak ñoom pour ñu may ñu fu ñu defee loolu dinañ ko dugal ci waxtaan yi nga xam ne dinañ ko waxtaan ak li nga xamante ne moom pour le village artisanal village artisanal am na direction bu yore kuréel yooyu peut-être yow boo demee wax mën nañ koo oyofal waaye da ngeen di am projet nag ñu gàttu parce que kilifa booy am moom dangay ngay yor kayit yu lii nga bëgg a def fii nga bëgg a jëm nii nga ko bëgg a def su ko defee ñun lu ci mën ci influence positive dinañ ko def pour que ñu mën mën def lu mel pour artisan yi war a dem ci chantier yi man dama foogoon ne bu ngeen ma naan chantier am na fii te demuñu dangeen ngeen ma naan Issa Dieye dem na fa ànd ak diw ak diw waxtaan nañoo ak waa ji waa ji lànk gan bu fi ñëw du fi nekk di leen wër am ngeen kuréel am ngeen ay représentant da ngeen war di xool ku fi am chantier ngeen def kuréel dem ba ci moom su sottiwul ngeen wax ñu ko ñu dugg ci loolu mooy yoon mais ku nekk bu toogee naan chantier bi am na defuñu fële day andi jafe-jafe léegi bi ngeen ko waxee la may samay koor woo ki yore chantier les logements sociaux wax naa ci yi nee na lépp lu am fii du ko wuti feneen bu ñëwee dina wax ak yéen liñ ci mën a recruter ñu recruter ko loolu mooy régler problème bi. waxuñu ne may saa koy defi keneen defi ko yéen artisan yi yéenay dem mu xam ñaata électricien la ba waaye nag li ma leen di dénk su ngeen ci duggee ambassadeurs yi Fatick ngeen ci nekk ñu dugal la ci yi ngay def loo wala nga sànni fa liggéey ba wala nga andi fa doyal bi da nga yàqal ñi ci des da nga yàq dara képp ku ñu ci tànn na nga am fulla liggéey li nga war a liggéey te liggéey ko ni ko war a liggéey loolooy tax beneen yoon yomb mais ku ci dugg def loo war a def comme chantier 2005 ya nga xam ne chantier yu bari yeggul dañ ko abandonné loolu day tax ku fi ñëw du ñeme waa Fatick wax neexul mais dañuy wax dëkk bi boo représenté sa dëkk am chance bokk ci dara da ngay am fulla bañ naw la nawaalee fa nga dëkk mais doo def yëfi caaxaan formation diplômante financement billet de la la Mecque loolu yëpp dégg nañ ko yàlla na ñu yàlla may fekke ak tal ba déwén ñu yor lu ñuy joxe bu boobaa Issa dina ci ànd parce que xam naa ne fii ak déwén moom pëccoxoo du fi am parce que du ma soxla loo soxla doomu mbëkk du mën a mbëkk kon dinañ mën a waxtaan di nas ba nga xamante ne ñi ci war a jot yëpp dinañ ci jot en temps la comme xeex day jeex te xeex bi jeex na eh, ñi ànd ak yow yëpp laa jox cër parce que Fatick ñun ñëpp ko bokk ki yor mooy joxe te yàlla rek la te ku jiitu soxla ñi ci des Fatick ñun ñëpp ko bokk nañuy xëccoo ci ngor ak discipline nit ku ne war ngaa fexe ba na dajeek sa moroomu gor bu la xoolee nga xool ko ci mbiri bët te doo sëgg loolu li koy tax mu am mooy doo ko wax lu ñaaw doo ko sosal doo ko waxal loo xamul féetal nag fu la neex waaye cër bi nañ koy jox parce que ku doon def leneen gis maa ki isa may dem këram mu ñëw sama kër da ngay toog rek naan maye man li ma doon wax fu ma jëm ak moom te fekk na maak moom ñu ngi def li ñu war a def di wax li ñu war a wax biram fay bu ko neexoon du wàcc du bàyyi day nekk meer wala day xeex ba tëdd ci suuf la fii ñi fi nekk yépp ak yéen fi ma toog mën ngeen fi toog waaye yàlla mooy ñëw ak ndogalam bu waree xaaj nit ñi dina leen xaaj bu leen waree dajale dina leen dajale ma bëgg leen nag wax ne pavage bi ngeen di tudd ba mu jaraloon ngeen point de presse bu ngeen ko waxoon nit di ngeen toog ne bu ñu xamoon lu ñu wax pavage bi programme Macky Sall du fii rek la koy def dafa ne dëkk yi dama leen di jox ay quota pour xëy ndaw yi nga xamante ne moo ko créé soixante cinq mille emplois pour que nit ñi amaale lu ñuy for ci xaalis comme feebar dafa amoon lépp taxaw ñu jàngale ci yi mu ne Fatick bokk na ci nañu lim deux cent cinquante xele ma andi fi équipe ñu formé leen ñu participer ci développement dëkk bi ba pare am lu ñuy fayee su projet bi jeexee ñu mën a defal seen bopp groupement mën di liggéey parce que pavage moom dootu génn ci réew mi du ni goudron dugg ci réew mi te dootu génn noonu la pavage dugg ci réew mi te dootu génn parce que am na ay tali yoo xam la tali bëri nit ñi pavage lañ ko defee mais nit ñi dañuy pavé seen buntu kër yi loolu nag yàqalul képp kuy def carrelage sa liggéey kon lu loo xam ne daf fi ñëw ñu bañ a wax ak chambre de métier wala ñu bañ a wax ak keneen man mii sax bañ ma ko waxee dama leen dem leen préfecture ngeen def seen recrutement balaa ñu naan Matar Ba ay nitam la jël képp ku mu intéressé nga def def candidature bu ñu la jëlee nga xam ne ci nga bokk xele yi bi ma leen di laata gis mooy bi ñu nekkee fii def formation ci laa rek fekk waxtaan ak encouragé leen ci bañ a xeeb liggéey parce que liggéey kenn du ko mu nekk seeni i doom di jarbaat te li ñuy gañe Fatick lay des kon dama bëgg ci wuut bi wuutum alal ku nekk bëgg naa am waaye lu yaatu dënn ba ku am ñu yéeme ko beneen mbir bi nag te foofu lay jeexale mooy lu ngeen mën a nekk nekk ay doomu Fatick ay société privée société privée mooy da ngeen di dawal seen bopp ñun ñu am devoir créer condition yu tax li ngeen di am di yokk jël nañ ci engagement di ci war a wax parce que kii yor artisanat yàlla dogal na am naa ak moom relation te xam ngeen ba mu ñëwee Fatick dama ko ne jëlal le président Issa Dièye ngeen waxtaan peut-être nag politique tax na dem na ba ci biir am ñagas ñagas parce que nag ñun ñu ànd ak président Macky Sall boo signalé gauche balaa ñuy xam ndax yow li ngay def du danger dañ lay soxla ba pare force ouvrière yi ñu jógee te leerul ci bopp ministre bi leerul ci bopp ñeneen ñi dañu commencé woon nag di xëpp suuf ci li muy di ko xajamal waaye bañ demee ci président ba xam ne kii xajamal mais dañ koy jàppale parce que Fatick la dëkk président bu bon bu dëkk Fatick moo ñu gënal président bu dëkk feneen dëkk te xamuñu ko te yàlla nag bonul am na ay difficulté parce que buñ la joxee ndombo tànk te yenn doole yi amoo ko mun naa di jafe-jafe loolu mën na am waaye bu ngeen ko joxee doole dina am moom itamit mu xam ne soo jiitee ay nit ñoo xamante ne ku ne mun naa far fu la neex da am na defar am na nooy dox parce que day yombal liggéey heureusement que ñun ñëpp. ay mbokk lañu ba dara ñaawul mais bu ñaawoon sa leneen mun naa toj par ñi jaar nii ñi jaar nii pour rokkale morso yi day du du yomb ma sa mandat bii ñu la fal yàggul yàlla nañ ci def bi nga mëbët yépp ci sàmmal bi bi war a ñëw it bi ñu bloqué xaar élection yi eh, damay dalal sa xel dana sotti parce que ki war a joxe ndigal joxe na ndigal pour que ñu jàppale la président Macky Sall bëgg nañu jàppale la pour nga dellu fa nga new loolu bu ci am njàqare bu ci am leneen dañu xaar teg yi di incha allahu rabbi di nga dellu fa nga ñëw la ca des mooy li tax ñu daje parce que ndaje bi ndaje wax artisanal la damay wax ne fii conseil municipal jël nañ fi ndogal wàññi location yi ca berge quinze mille ya ñu àndi ko dix mille loolu yëpp xalaat leen moo ñu def def nañ ko marché wàññi ko yéen artisan yi mairie bi xatalu leen ci dara mosu leen a dégg ne mairie bi wala bariwul ñëw na di leen dàq ci ngeen ne yéen da ngeen di xëy rek ubbi fenn même bu ngeen di tëj trottoir bi dañ leen di seetaan xam ne ñëw bokk mbir waaye gën leen a defaraat nag parce que nit bu la bàyyee ngay def tey li ngay def xam nga ne lii xaw naa xejam da nga koy gaaw a dindi nag ñu ngi leen di jàppale ci ñu mën ñu ci bëri fi ñu nekk duñu fay sax weer du dee tagg dara ñu ci bëri fii ak ñeneen ak ñeneen ñu ma xam waaye buñ dawalul yéen man ne lu ñuy def comme ñoo bokk problème yi gens mi maak moom dañ mel nii ay mag ak rak dañuy tooyante ji waxante lu ne mënuma dem fekk ko mu nekk ci ay jafe-jafe dépense ma di ko tegal beneen jafe-jafe damay gérer yéen itam gérer leen ñu rafetal diggante te mobiliser wu li tax ñu daje mooy lu ñuy def ba Macky Sall am ndam lu rëy Fatick loolu nag dafa laaj mobilisation taala yaa Tidiane Dieye ak ñi ngeen àndal ñi nga xamante ne dañ leen di tudde ne Matar Ba la ñu àndal ak ñi ànd ak Issa Dieye ak ñi ànd ak Biram ak ñi ànd ak keneen nekk leen benn bloc ngeen def une forte mobilisation dugg dem ci nit ñi waxtaan ak nit ñi ñu dem voté yi képp ku bokk loolu jëli leen ko mu bokk ñu voté loolu lañ leen di demandé leneen demande wu ñu leen ñu boole ci jouru élection yi xam naa ne sax du ngeen di liggéey élection da ngeen di voté ji waaye xam nga lu neex ci artisan yi artisan boo gis vote na fukki nit ak juróom ñoo xamante du ñu artisan du ñu njobootam bu ñu xëyee bu ñu amee deux mille ñu romb ñu jox leen deux cent yi wala ñu jox leen cinq cent yi ñu bëri yéen jox dépense loolu dama ko xam parce que damay toog ci yéen parce que liggéeykat bu mel ni yéen di yaatu dënd parce que da ngeen di xam nii coono moo tax lu ngeen am bokk kook nit ñi moo tax ñooñu ngeen di dimbale nag bu ñu tayal dem leen jëli leen ne leen kaay la ñu wote su ko defee taux bi jóg em ni mu war a am su ko defee Macky Sall fu commune Fatick daa war a jiitu ci Sénégal loolu yoon Macky Sall defuñu dara ñun nii mën nañoo fal ñuy sooxe waaye moom mu ñuy xalaat di ñu fal dëgg la wala dëgg bu leen xeeb de Issa Diaye mii bu fekkuloon Macky Sall nekk président de la République gëw moo ne dina nekk président chambre bu bu national de dañ koy ruse Macky di ko ragale Macky Sall donc looloo fi ne bu fi Macky Sall newuloon du ngeen dégg ne Matar Ba ministre loolooy dégg Biram Faye mun naa bañ a doon DG ministre bii mun naa ko bañ doon keneen na ko bañ a doon kon nag ku mu joxul nga dugal sa poos jox na ku lay gëstu wala kuy mat la ak yow kon taxaw naan defu fi dara ak yooyu moo tax sama xarit ba léegi nga xam daf ma tudde doom ma déglu seeni audio yooyu ngeen di dóorante ay kii et puis ah, du wax jooju moom nay nay jub rek na yi jub ni ko gaay waaye dama ko déglu woo ko bam ñëw ma ne ko arrêté sa lii ngay def nii Sonkoy lan mer du tax nga def looy rëccu ëllëg mënuñoo am ku gën Macky Sall ci réew mii mënul am ñun waa Fatick bu naqari woon sax dañu gëm guux ko waxtuma laa yëfi saf ko rek dañ ko war a mos jàpp ko teel ko mu am li mu war te ngeen sagal ñu sagal Issa Dieye sagal ñu ñun nii mënuñu lépp waaye bonuñu nag ñu ngi jéem mënuñu lépp waaye bonuñu ñu ngi jéem te lu fi xew ngeen gis ñu ñu taxaw mën ngeen di xalaat ñu ñëw ak xaalis nag fekk loxoy neen la ñor mais di ngeen ñu gis lu mu dee dee kon kay nag ki nga xamante bu la rombee nga ne mbay fay moo gën bu la rombee nga ne kii kan la au moins xam ngeen ñu au moins dara doxul ñu diggante waa bu ñu dénkee dëkk da ngeen ñu war a suturaal suturaal ñu mooy jàpp ci liggéey bi xarabaate nag du ñàkk waaye xarabaate bi bu mu yegg ci toog ne du ma wote voilà donc loolu laa bëggoon a wax di leen wax ne nag pour seen mobilisation boobu comité électoral bi amul xaalis waaye danaa leen jox ci sama góorgóorlu bopp def ko ci au nom de tous lu ngeen di yëngatoo wala ngeen di daje di naan café wala ngeen di dugg di seet ñenn ñi dinañ jox 2 millions su ko defee Issa Diaye nee na dina ci teg 200000 parce que nag moom xam nga kenn du ko jam naa ni ku ko mos rek mu mu mu yëngatu donc moom itam dana def loolu nañ démarrer rek après fii ak ci kanam dinañu xool lan lañ mën a joyal bi wala lan lañ ci mën yokk bu mu fekkee mën naa am waaye da ngeen di xam ne muy directeur yi fi nekk yëpp ak PCA yi yëpp ku ci ne joxe nga xaalis ci comité électoral tey directeur généraux yëpp di leen sant ku ne génnee na ko dem jox ko trésorier président de conseil d' administration yi leen sas joxe nañ ko responsable de parti yi ku ci nekk li nga am jox nga ko réew nag kii day joxe xaalis kii joxe xam-xam kii joxe ñaq kii joxe jot kii joxe wax kii joxe leneen ak leneen loolooy tax mu mën a sotti fii ñi fi ne yëpp ku ci ne yaa ngi def loo mën ak loo mënul ku ci nekk am nga kër te tëddatoo ci lal ndax bëgg Macky Sall am ndam bëgg suñu député bi sigi à l'Assemblée nationale ma lay dénk nag maam Fatou nit bu baax ca lañ xamoon laa wax nag parce que nit boo koy tàgg da nga koy tàgg ca la nga xam nekkagul député nag taxawal gaa yi xam nga. jógal taxawul li may wax damaa bëgg nga di ko dégg. Biram xam nga tey xam nga tey boo ne Biram fay di nga xam lu mel parce que soppeekuwul directeur général ñëw na waaye na meloon la mel ba tey Issa Dieye président Issa Dieye président chambre nationale des métiers soppeeku wóolu na meloon na mel ba tey may sa may ngoor xam nañ ne nam meloon na mel ba tey Ali Koto nam meloon na mel ba tey ndey naam xam ngeen ne xam naa ne ñoo ko forcé mu toog fii mais teel mu ko toog grand Maodo Dieng moom moo doon dawalal Macky Gassama toujours dama ko naan man ba may jàng gis na ngay baraay dawalal góor yi xamoo ne toog maak yow mu ngi nii toog soppeekul Bamba Sarr nga xamante ni ñuy wax moom la daf maa day balaa moo dem Dakar ni ma day dajale matériel pour accompagner les artisans le mu ngi nii toog muy Bamba Sarr damay dig nii rek ci volet mën naa wax pour ku ne li tax may day maam Fatou mooy pal pal luñ jar moytu la na fekk taxawaay bu mat sëkk pour du la dëpp am na ku nekkoon député bi tabay sekk ma di ko sant di ko gërëm na mel ni nga meloon ak say jigéen mel kook say góoru yéen itamit ngeen xam ne ab député mënul lenn lii de salaire am mënut mënul dara waaye sac moo am solo su ñu demee assemblée nationale ka am droit assemblée ne bu ñu demee assemblée nationale ministre bi amul droit waaye taxaw fi député yi ne soo ko defee ci fee il faut extrêmement grave gis nga ministre ba ca bokk su bañ koy toogloo amul droit waaye ci député yi pour te dire que fañ ne ñi représenté réew mi ñoom rek ñoo am droit ak huissier ya fa nekk. dox teg seen tànk foofu kon moom rek ay am droit taxaw fa jël kàddu di wax seen tur loolu la leen mënal waaye bu xaalis la leen mënal loolu la leen mënal waaye mënalu leen leneen lu dul gunge leen pour que ngeen am waaye lu nekk loo xam ci poosam la mën a jóge mënu ko kon nañ mën a fal te mën a gunge mën a fal mooy ñu mobilise fal ko waaye gunge ko jox ko sax mu mën ñoo défendre ñu koy teg lu mu àttan kon maam Fatou tey kàddu bi li mu doonoon mooy ba ñu gisee imaam yi gis jigéen ñi mënuñu woon a ñàkk a gis ñi yor économie Fatick muy les de Fatick Fatick n'a pas d'économie yéen rek a yor économie Fatick bu ngeen tëjoon rek dëkk bi sa ngeen yàgg naa leen ko wax maa ngi leen di wax nag bu neex parce que Fatick jëlaat na paix ci Pakasen ci commune yi Sénégal yépp Fatick moo ëpp le point daaw bi ñu ko amee am nañ presque trois cent millions yu nekk ci kees bi ren aussi dinañ amaat lu toll noonu te lépp fas yéene nañ ci prochain conseil municipal ñu def ko ay investissement dans la commune de Fatick avec les artisans de Fatick avec les populations na nekk nag lu ngeen mën loo xamante ne mën nañ ko defe dinañu ko defee fi nga xamante ne mooy Fatick di gërëm nag ñoom Cheikh Samb ci liggéey bi ngeen di liggéey pour accompagner Fatick ci sécurité routière bu màggal jotee ngeen taxaw bu gàmmu jotee ngeen taxaw bu Popenguine jotee ngeen taxaw defaraat ngeen ay panneaux loolu yëpp dinañ ci ànd ak ñi ko yoree pour que ñu def une grande cérémonie de réception de ça et de plantation de ces différents tableaux pour la sécurité routière kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di am kóolute ci yéen ne bu ñu demee le 31 nit ñi dinañ nga xam ne Fatick benn bopp la te ñëpp Macky Sall lañ jàppalee maa ngi leen di sant di leen gërëm